mun naa ne gàcce la gàcce bu mag ci ñi nga xam ne ñoo organiser élection bi d'abord gàcce bu mag ci sénégalais bu mel ni ñun parce que quand responsabilité yi nekkul rek ci kaw ku ci ne am nañu responsabilité parce que euh, depuis 1996 euh, amuñu élection yu mel ni élection yu chaotique yi bi mu amee am na loo xam ne Abdou Diouf moom la def immédiatement xam nga élection yooyu dañuy reprendre sax les élections à Dakar fii donc ci la Abdou juuf jël ay matuwaay ñu am onel ba pare ñu nommé ay nit ñoo xam ne eh, am nañ xam-xam ay nit ñoo xam ne am nañ kóolute Lamine Cissé sax ba mu jëlee kii bi pour def transparence rek eh, dafa jël fichier bi dugal ko ci biir internet ba ñun ñi naan ko yow lii boo ko defee bu ñu jëlee suma tur jël sama lii mun nañu jël xaalis banque mu génne ko bàyyi ay tur loolu dafa leeroon sénégalais bu ne mun nga ci dugg président dafa war a seddal président dafa war a dëfal président dafa war a wax ñi nga xam ne ñoo ko wër tey bu fekkee ni Sénégal dem ba mel ni ñu fexe ba nga xam ne nan la ñuy jëlee bal bi teg ko ci suuf toog waxtaan. waxtaan moom moo war a jël initiative moom moo war a jël initiative fexe ba nga xam ne waxtaan bi dina am yoon ñi ci war a bokk bokk ci muy société civile politique religieux yi sax war nañ ci bokk tey parce que tey ni ñuy dugg ci politique ak ni muy amee. mun na dem ba nga xam ne dina nasaxaay suñu société bi société civile ñu xoolaat seen bopp président de la république amul intérêt toujours bu fekkee ne am na koy jóg ni damay dox wala damay def lii rek ñu lacrymogène la kooku na ko bàyyi lacrymogène yi nañ ko arrété te di waxtaan ak ñin ñi ku ci bugg manifesté nga manifester mais lacrymogène yi dëgg-dëgg di nekk am sa population di ko gazé du loolu moo gën kooku nañ ko bàyyi vraiment yooyu moo am na xam ne li nga li ñu wax responsabilité bi nag c'est partagé mais responsabilité bi ëpp ki ko gën a am mun a jël initiative te faj mbir mi mooy président de la république te ñu ngi koy ñaan mu def ko parce que loolu mooy njëriñam mooy njëriñ ci Sénégal tam